saraax la ñuy def ci xew-xewu làmb tey fekk fa diggante Modou Lo ak Ama Baldé bile combat royal fan yi amateur bu xëy ndekki ci ngay débat ba guddi jot nga reer tëri képp kuy amateur ci làmb ji sa xel a ngi ci diggante Modou Lo ak Ama gannaaw ba ñu doon laam-laamee combat ba dana amam du am ba ñu wax ne face à face bi le 4 février gaa yi xëyaat nañu léegi doonatul ndax combat bi dana amam du am waaye léegi jàngat la ci naka la combat bi mën a def ci làmb ji bu dee Ibou Diouf fi directeur technique bu ne combat bi mooy doon meilleur combat de la saison moom Ibou Diouf si sunu làmb la xëy fësal li ni mel mooy diggante diggante Ama ak Modou Lo mooy combat bi dàq ci saison bi combat la boo xam ne bu amee dina suqali làmb làmb ji ni mu demee ñëpp gis nañu ko ñëpp xam nañu ko situation bi làmb ji nekkee moo tax ñu nangoo bëreek Ama Baldé loolee moo waral ma ne combat bi dana neex dana yëngu dana suqali làmb ji bile combat mooy doon meilleur combat de la saison bu dee ci Modou Lo le roi des na seen xel dal aucun événement ne peut dépasser Modou xarañ loo amul benn événement bu a dépasser Modou Lo yàgg naa def ci ne mbër day pare bu combat bi doon suba suba moom pare na dara du ko bett lanu bett kay mooy kàddu ya Franc yëkkati ci départu Papa ba Fass Papa Sow n'a de mal amul lenn lu mu def lu war a tax ñu génne ko écurie Fass ñoom kay dañoo def lu leen neex képp ngir jële ko fa ñoom dañ koo bëggoon a ñàkkal ko fayda waaye loolu du fi amee ku xam Papa xam ne champion la bañ ko laajee nekkinam ci écurie Parcelles mbooloo lii la fa xamle je suis un produit Papa ba mu waxee ca combat royal ba diggante Modou Lo la mu xamle mooy damay ñaan Modou Lo gañe sama bëgg-bëgg man Émile François Gomis mooy Modou daan Ama Baldé daan Siteu Parcelles neex mbër yi signé ku ci mel ni Gora Sock Yékini Junior Garga 2 Laye Pythagore mën a am contrat bu dee Papa ak écurie bu bees ba muy waaj a taxawal dimanche bii la ñu fas def assemblée générale le 2 février à partir de 10 ca sem mooy doon président baak écurie manager ba li ni mel dimanche bi la fas yéenee leer ca unité 19 leneen la CNG fas yéenee leeral teg ko ci yoon mooy face à yi ñuy def te régulariser wuñ combat ya le CNG prend une batterie de mesures combat bu ñu régulariser wut ca CNG kenn dootul def face à ba ñoom waa CNG ñaari lettre circulaire la bind jébbal ko promoteur ya mesure ba ca njëkk mooy bépp promoteur bu bëgg a tee organiser combat nga déposer ab dossier ca direction administrative dee bi nga jàppoon moom nga tëgg combat yi dañ la koy delloo bu dee da puusaat combat ba wala nga avancé ko ñàkk nga say 1 million rax ca dooli moom président Alioune Sarr ne combat yi nga xam ne déclaré nañ ko waruñoo weesu 4 mois ku fa ñëw di régulariser combat di dépassé 4 mois duñ ko nangu lu mu bari bari ci 4 mois la war a yem beneen mesure ba mooy face à face non dootu fi am promoteur toog ci sa ruq taxawal sa combat jekki ay mesures dañ ko war a jël bu saison bi di ubbi waaye waruñoo dem ba ca digg saison bi ñu jël ay mesures li ni mel bu amee kon injustice lañ koy tuddee fa nuy jeexale mooy ca petit production gannaaw bu mu jógee le 21 décembre ci diggante xeeru ngor 2 ak boo yëmbal taxawal na beneen combat diggante rawaan bu rok énergie ak Tidiane Faye moom Ibou Sène jiital petit production bi le la taxawal jàpp ko ci mois de mars jërë ngeen jëf mbokk yi ni ma a fës ci ëttu yéenekaay